Euh, merci de nous retrouver sur la chaîne des valeurs, bien sûr la télévision Barak TV, Cette c'est une présentée par votre fidèle serviteur, euh, le professeur, euh, mise en cadrage, l'incontournable Gore Diallo, nous ñu amaan sur bu tourner di tourner sunu numéro euh, fils du quartier Médinatoul di dalal un grand monsieur un grand homme un grand homme politique mais un grand homme social di El Hadj euh, président du mouvement Souhat Niarém Nous avons un président Hadj euh, président AMSA mais président conseil d'administration de l'ONG fédération di Bawal mais ba secrétaire exécutif du poste de santé Médinatoul tey est la sur la la chaîne des valeurs muy la télévision Moubarak TV seen émission noo ko dundee la semu la télévision Moubarak TV ñoo nga am mbégte bu yaatu nga leen dalal fii sa kër euh, si Médinatoul ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam di sant bu baax sama wajur ak sama njaboot di jaajëfal bu baax sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul di nuyu auditeur ak auditrice yëpp. di nuyu wa jurbel gep di nuyu senegal gep di nuyu wa diaspora bi yep di lañu nuyu yeen ñi xamni xam ne yéen a ñëw yi set si ma sama kër ci émission noko dundé di émission bu am solo euh, ki nga xam ne ni moo koy moo koy di sunu frère euh, Cheikh Tidiane Ngom le professeur and ak Gora Diallo le technicien di wax ne gis nañ bu baax bu am solo bi nga xam yeen nga def ci diwan bi lañ ci jaajëfal lu baax di wax dal leen ak jàmm. Euh, jërëjëf euh, nuyoo bi am na solo waaye lamboo na lu bari euh, dañuy ñëw rek jublu si waxtaan bi njëkkee ko comme ni ñu njëkkee chaque jour muy jël portrait ki nga xam ne moom mooy El Hadj Sémou Ngom xam naa wax sa bopp dina jafe loolu waaye tey soo ñuy wax El Hadj Sémou Ngom yaay kan fan nga juddoo fan nga yaroo fan nga fekk baax ba baax fekk la fa sa cursus scolaire fan nga jàngee ba tey ji li nga am tey lu la yàlla denk tey lan ngay denk li nga xam ne mooy penc bi. waaw di santaat yàlla rek ci wax ne euh, man euh, maa ngi juddoo euh, Daara Jolof waaye dañuy wax ne juddu moom lu ci am solo moom mooy fu sa sutukaay nekk rek fa nga dëkk sama papa moo fi ñëwoon ñu affecté ko Ziguinchor affecté ko Louga affecté ko Diourbel affecté waat ko indi indiwaat ko Diourbel alors mu toog fi ne daana xaar affaire en 1973 mu toog ba yàlla def ne far sax fi la soufam nek donc euh, lolu motax suñu soxna deuk jurbel hmm. suñu doom juddoo jurbel ñi am keur jurbel kon finalement nous sommes des loi nous sommes des loi à part hmm. entière hmm. donc euh, ñi defee suñu cycle primaire fële ci dara mais def suñu cycle secondaire fi ci euh tok nak euh, di liggéey ci maire bi jurbel yore ay responsabilités yu bari yo xam ki ne yalla dogal na

ma peser sa bopp xool ne man wax dëgg yàlla ñi fi nekk nii man nga ma ëpp chance ci li nekk waaye dàquma politique. Hmm. kon nag la ci war moom mooy du ma xool ko xam ne dàquma politique ba pare wëlbatiku may topp ci gannaawam ba ñu maa toppaate de. Hmm. ba ñu maa ànd kenn nit hmm. mais damay téye sama yëfu bopp ku dikk fekk ma ci ku dem bàyyi ma ci. du ma topp ci gannaaw kenn waaye nag dinaa ànd ana nawle. ma dem ci Aminata Tall mi nga xam ne moom laa nekkaloon rek parce que depuis son arrivée à Djourbel c' est une histoire. Mhm. dañ ko nommé ministre délégué mu nekkoon au Canada. Mhm. Abdoulaye demandé ko mu ñëw wàcc base bi. y avait la lettre de boo xam ne que nii ñi ko signé mooy sama papa Djibril Sangolo Ngom. Mhm. di euh, sunu baaji sunu baay Moussa Moussa Moussa Ñing. Euh, sunu baay ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm leen. may sa may sa. Yelli euh, Faye Yelli Fay c' est Yelli Fay. ak euh, Ousseynou Ndiaye PDS euh, je crois que ak euh, Ndongo Sarr ñooñu ñoom ñoo signé lettre bi pour Abdoulaye Wade wax ne na Aminata tal ñoo wàcc fii nekk cadre bi. donc loolu amee mu wàcc fii moment boobu moi j'étais le responsable des jeunes au niveau départemental de l'UJTL. Mhm. au temps du PDS. donc tout le département am naa ko yoroon. donc xam nga politique dafa doy waar mm-hmm. ndax ñun moment yooyu ñu ngoon ci ay saretu mbaam di yéeg di wàcc mm-hmm. di dugg ci àll bi dem di ñëw ak ki saretu fas ak dox suñu tànk mm-hmm. mais politique léegi moom bu la joxul oto doo dem fenn donc dafa dafa àdduna dafa dox moment boobu dafa métti woon dafa métti léegi dafa neex moment boobu moment xeex la woon moment boobu ñeme song régime la woon moment boobu ko amul fit bokkoo. jamonoy Abdou Diouf jamonoy Abdou Diouf. Abdou Diouf la commencé d'ailleurs. Senghor la commencé. Senghor euh, tuuti leen ci laal. après élection Senghor yi. ba muy wax naan ku amul karaw bu at bopp bopp at karaw mënut a rew mhm. boba moy première élection ak mhm. ki en 1983. Mhm. Euh, donc après ci len dikkee nak en 1977. 1975, 75 après ci len dikkee nak ñu yor ñëw nag Abdou Diouf jël léngay ñuy jànkonte ak mom avec beaucoup de difficultés. mais nak xam nga bo amé engagement. am abnégation gëm li ngay def. bëgg ko fonko bon dara du la et on a vu l'histoire ici à Djourbel ci kër gi d'ailleurs. donc loolu lépp moom mooy li nga xam ne que nii moom ma animé woon quand j'en ai ak ba ma ci waxtaan rek ak Aminata Tall munum loo si jublu ma ne ko en toute sincérité dama dama ànd ci ak yow topp sa gannaaw di liggéey mais gis li ma gis nii ñii du ma topp seen gannaaw waaw hmm. ah, du ma topp seen gannaaw lan moo waral loolu waaw parce que nag hmm. ñoom la ma xam ci politique xamuñu ko hmm. Macky la moom lan fal te ñun ñëpp ko bokk falandoo waaye nag dafa am ay nitu boppam. Mhm. ñooñu la xam. Mhm. ñooñu la jox confiance. Mhm. ñooñu la ànd ak. kon nag ñooñu mu ànd ak noonu nag wax dëgg yàlla boo fal dalee. ñoom lay fal. ah mais fal boobu nag léeg-léeg nit day dem foo xam ne nii day fàtte ne buñ falee nit am nañu ci pegg ñoo xam ne gën am nañ mérite ba. mais joxuñu ko mais ñooñ dañ dem ba dalee ñu négligé. négligence boobu nag laa doon defati du ma nangu kenn du ma négligé. ok nangu kenn du ma négligé ku xamul maay kan man xam naa man maay kan. donc raison boobu aminta Tall na ma kon la nga bëgg da nga créer sa yëfu bopp. Mhm. ma ne ko loolu laa bëgg ma ci sàkku sa ñaan sa jàppale. moom Amine moo la. moo la jox nangul naa la ko. sa ñaanal naa la. Mhm. sa yàlla na am barke. ok ko ci saalam. Mhm. nangu naa la ko. sa ñaanal naa la. sa yàlla na barke. nangu nga moom mooy ba mu amee en 2013 en 2014 dem naa màkk. mu jaare ci moom. ma ko ci sant baax di ko remercier ma dem Màkka daal di ñëw mu prouver sans bopp ci ay woote yi muy woote. Mhm. saa yu wootee ma def mobilisation bu exceptionnelle. Mhm. boo xam ne que ni ñëpp dañ koy gis. Mhm. Sénégal gépp dañ ko xam. créer ay slogan mouchoir blanc un mouchoir blanc. oui mouchoir blanc yi mi ngi waaj a bëri mais na xam originalité bi man la. Mm, mm. gis naa nag ku nekk nga takk. mais bu borom jugee rek dana xam ne xel ne dafa am ko fa moom. aca <laughs> mi ngi noonu yéen a ngi ak seen télévision Mbarak TV la chaîne des valeurs seen émission noo ko dundee tey ñu nekk sunu cinquante quatrième numéro. ñu dalal euh, El Hadj Ngom nekk président euh, du mouvement Suuxat Njaareem euh, ba tey dañu ñëw rek si li nga xam ne moom mooy nga nekk ba tey président AMSA c'est une association c'est, un réseau d'associations, parce que ba ma association la porté ni ay groupement famille Il ni ay association Nous porter. ñu association yu bari association yu bari la. ak groupement. Mhm. ñu mhm. ban un bureau. Mhm. à l'époque ñu fal docteur Maguette un certain moment on na bon d'ailleurs amon est partenaire partenaires. ma ñëw jaaju bu wujj ko mujj gi def assemblée générale. Mhm. ñu falma ma. man ma falee ma yokk partenaire yi. ñu liggéey socialement. parce que partenaire yi lañ doon imposer. dañu mhm. doon demandé ak ñun luñ buñ bëgg doxee finalement dans ñu doxee leen au choix. doxee au choix moom mooy. Mhm. lépp loo xam ne bu ñu ko defee. mu def mu nekk ci askan mu baax ci askan wi. ñun nous lañ doon xalaatee. moo tax ñu doon jël lu bëri. di koy jënd. Hmm. di koy def ci askan wi. Hmm. mu ay ceeb hmm. mu ay saabu. mu ay suukar. di koy jox askan wi nga xam ne ñoo ko mérité. Euh, tey soo ñuy faram fàcceel say réalisation si saa euh, lan la. AMSA bëri na lu mu liggéey. boo demee tey jii ci poste euh, dispensaire municipal. dispensaire bu Sidi Gisee. am na benn tabax booy fekk ci digg bi. kooku ñun suñu partenaires yi à la SEM ñoom ñoo ko def. d'un coût de cinquante million

nekk ci àll bi ba bu ñu ñibbee salaan yeeg yooyu ndox suuf yi léeg-léeg day am ñu muy màtt ñoom ñu jooytu waa Senelec mais Senelec ne mënut foofu bañ ñu ko ñu def leen solaire néeg bu nekk ci daara ja ñu defal la lampe jënd ñaari télévision benn bi ñu def ko ci hall bi ñu jàngee alxuraan bi ci des ñu ko ki nga xam ne ki moom mooy sëriñu daara bi pour que léegi xale yi mhm. bu ñu wàccee bu ñu demee yelwaati dañuy yàkkamti gaaw mhm. ñibbi ci daar ya mhm. pour ndax leen lu ñu am ñu ngi koy am foofa bu lay laylatul xadar dikkee ñu rey suñu nag dem yóbbu ko ci kër sëriñu daara yi dem toog ak ñoom ba tey ba tey ay réalisation am sax réalisation am sax def nañ ay saupoudrage pour benn yoon di ñaar ci hôpital ci dispensaire municipal bu Medinatoul ak ci si tu gisee. avec les partenaires. lépp avec les partenaires. Mhm. boo demee tey euh, à l'hôpital Luque. Mhm. hôpital Luque amna Ben salle bu wax la salle des brûlés. Mhm. tey jii képp ku lakkati ci di région de Diourbel à du dem Dakar salle ba nga fa défa nañ ko équipé nañ ko ku lakkati décret bu mëna a bo boo fi ay spécialistes dana la parce que amna équipement bu doy. ci saal boobu. ñoo ko def. am saa moo ko def. am saa ko def. Mhm. parce que la tax ma def ko fa. Mhm. danoo dëkkoon doon def ay action mhm. sociale ci ay nit ñoo xam ne que danoo feebaroon. ñu yëg ko am xale yoo xam ne dañoo lakk. ñu yëg ko ban demee ñu fekk benn xale bu ndaw boo xam ne que mi ngi war a toll ci ay huit ans. ndeysaan gisoon naa ko mais ba ma delee xëy suba gi ñu war faa delluwaat. yóbbu suñu alal war leen seeti yàlla dogal mu gaañu. alors Cheikh Sow. yàlla yàlla yërëm ko yow bokkoon ci ñun mhm. mu ne lii bu ñu yàlla dimbalee mhm. dañ leen defal saal boo xam ne nii mhm. ku fi lakkati dootu tàngoor dootu la rey ndax booba tamit loolu moo xewoon foofa alors loolu nag ban ko defee wax dëgg yàlla ci leen demee nag ba gis ne dafa salle dañ ko war a équipé ñu dem naan directeur mu accordé ñu ko jox ñu lettre yaa ngi fi ñu ngi yëpp ñu defar équipé salle boobu bu fi nekk nii wax dëgg yàlla Il ngi ci réalisation am émission bi mhm. rek euh, nouvellement élu euh, président euh, PCA ONG fédération di Bawal y a ban fi falé yagul mais est-ce que amna ay réalisation wala ay fédération di Bawal oui parce que xam nga fédération Bawal dama dama confiance euh askan la région de Diourbel mhm. ci 2011 ba 2014 c'était un mandat de 3 ans ma amone sen confiance ma ñu voté ko ma gagné ko ah ñi demaat élection ñi gagné ma une seule voix ban démé ba xamni xam ne ki mandaam jeex na ki ma gagné ñu wara démat élection ma ko no jàllal man la bay nga dem man sama lepp ci ngor laakte ak ci gëm yalla ma ko no démal nga défar sa deuxième mandat amul ben problème man bu man rek la et j'ai demandé à tous mes mes mes mes mes mes amis qui nga je leur ki man Je dem ma mhm. alors ba deuxième madame, mhm. eh, il voulait encore postuler. Je dire ça Je rek ma mhm. alors je euh, suis amoon na <laughs> mais je a que euh, def une élection c'était le 21 novembre passé un jour de samedi dafa élection ma gagné ko largement. nguur daal gagné ku dama ko gagné nag. Mhm. fekkoon naa ne ay chantiers yu mun entendre. Mhm. Mhm. mais chantier yooyu man xamoon naan ci kàttanu suñu borom maa koy defar tey bu ma si d'abord récépissé association fédération de Bawol man vais ko si ko maka jeexal. Hmm. bu ñu tepp ñu siège ma waxol leen dit xaar def de nank té Et dogal ma falu man mako dox en moins d'une de deux mois yàlla doxal ñu les autorités parce que xam nañ ONG bi limi faire. ñi am deux terrains jumelés Il xamni savoir que terrain ba hmm. ñu millions 12 millions 13 millions man li ñu jotee am ci néew bëriwul waaye téye leen ko fofu fexe na ba lijjanti terrain bo xam ne ci sama ay la maa ko and ko ak manager de la fédération. Mhm. de coût de 35 millions ma am ko gratuitement. Mhm. ko réalisation la. actuellement fi may wax yow. Mhm. tabax nañ ko ba rasé na. coulage ma ci dess actuellement ñi ngi wom mm, mm, entrepreneur bi sax pour mu commencer def dallage bi gi non noonu lu mu gatt gatt def na ci 20 millions. ok ah benen réalisation bi. mom mhm. moy euh, tomber waral ay gaaf. tombe moo waral ay gaf mhm. ndax fédération lono euh, association lono won mhm. mais auparavant avant que ñeu dañu déposer une ONG. mais ci sama ay ak suñu lijjanti ci la ONG bi wàcc see agrément bi. léegi nekkatul association léegi noonu nekkatul association nous sommes une ONG nationale. nous sommes au même titre que les autres ONG non nous sommes une ONG nationale. Mm-hmm. avec beaucoup beaucoup de de de de de de projets. Mm-hmm. parce que nous Nous ak caay nous mm-hmm. dañuy avec banque mondiale c'est PRN. programme de renforcement nutritionnel. nous liggéeyandoo avec euh, l'État du Sénégal la bourse familiale. nous avons d'autres projets qui en cours donc loolu ay réalisation la. ay bu neex la yo xam sa sa sa ay la sama ay la am. ah ba dañi dess euh, ci walu euh poste de responsabilité yu la yalla denk rek muy secrétaire exécutif euh poste santé bu Médinatoul euh, bobu aussi ba la nga fa ay réalisation waaw xam nga <laughs> cher xam nga man du sama jëm dal xam nga xam nga kan la. Mm. population bi la population bi ñoo olo c'est pour ça que je suis rek ma jëm faa teg sama empreinte ndax que poste bi léegi ma yàgg fi mhm. tout récemment sama mandat ba mu jeexee ma doon bàyyi mhm. mais ministre bi bind ab décret changé poste de santé le CDS la mais léegi ñi nga xam ne que dañoo liggéeyoon liggéey bu baax bu leen neex mën nañ rester commencer à zéro parce que ma doo bàyyi mhm. on était 68 organisations yu doon compétir poste bi 68 68 yooyu ba ma compétiré man am ci 48. ci 68 yi. 68 -hmm. donc ki nga xam gagné. 48 mhm. 48 voilà moo moo 20 20 voix. donc kooku askan wi askan wi ñoo la bàyyeewu ñoom ñoo fi bàyyi ñoo fi mhm. bàyyi. Mhm. loolu tax na. Euh, tey poste bi dafa mel centre de santé ah gouverneur mos nañu ko proposé. dafa mel ne centre de santé échographie bu sophistiquée la fi des mhm. euh, des sages-femmes am sages-femmes ah aussi. non j'ai trois sages-femmes recrutées recruter. Mhm. et fay le maa la mhm. trois sages-femmes Yo ont ne que yu qualifié là c'est des sages-femmes d'État. lu l'unique hôpital ni nek dispensaire ñu ay sages-femmes plateau médical donc les ñu wax. mais actuellement fille le plus xew dispensaire à neuf fi. échographie. échographie def fi échographie bu wóor bu sophistiquée. def naa fi laboratoire bu baax ba sophistiqué tey jii femme bi nga xam ne dafa dafa nekk dafa nekk jigéen. Mm-hmm. di passé visite di mm-hmm. dugg ci seret wala dugg ci ay oto di rëng-rëngi mm-hmm. ba nar a àgg dispensaire na yem fii dafa ko lu moo euh, naka ngeen def ba euh, lijjanti euh, vaccin yi parce que am na vaccin yi jamono yi dafa manqué mais ku ñëw poste de santé bu Médinatoul vacciné wu mais xam nga xam nga xam nga du ma vanté wu mais kii def ay preuve il faut ñu may may xel parce que mission bu jógee au niveau na Dakar mhm. national wala nga jógee au niveau international bo diké ci région de Diourbel ci ñun lañ lay orienter parce qu'on est en train de faire un travail un très bon travail mhm. damay au passage damay nuyu mhm. le le le l'ICP Djigo mi nga xam mom il fait un très bon travail sage femmes yi nga xam ñoo elles font un très bon travail donc personnel bi nga xam ne accompagner donc loolu bu fa dafa war ndax euh, dégg nga nu ma ko waxee léegi. Mm-hmm. Euh, dara manqué wu fa. maternité ba fa mu nekkoon nga xam ne jigéen buy mucc sax bu amee lu mu wax rek yow bi nga toog si di seet di si médecine sax. Mm-hmm. médecine mm-hmm. da nga koy dégg. ma xam ne lii yënutul maanaam. dafa am ay gynécologue yoo leen di liggéey ak waa waaw gynécologue yi euh, pratiquement xam nga dafa pyramide sanitaire dafa am. sage femme bu nu gisee loo xam ne complication am na. dañ koy yóbbu dispensaire. dispensaire bu gisee complication am na. Mhm. da koy yóbbu hôpital. donc priorité boobu la. mais ñun liggéey noog benn gynécologue. Mhm. lu may rek mhm. euh, bu écho amee tous les vendredis. ñun dañuy organiser ay écho. malades yi nekk fii yëpp dañuy daw ñëw. ñi dañuy consulter en échographie. 15 heures ba 20 heures.

Eh, bientôt mu am installé na ko pare. ku ñëw ci ticket ngay ngay ngay mhm. réseau la da ngay tàppee ñi di ñi nga xam dañ koy contrôler. Mhm. Euh, dañuy génn si du domaine social dugg si domaine politique. moo moo nu fi indi sax euh, ñu gis ne euh, jamono yi passé gars yi ñoo ngi fi baagante baagante bu metti ndax jamono yële ñu génn DG Moustapha Gueye seet si woon na la fi waxtaan woon ak yow jamono yi passé aussi gis neen ki nga xam ne ne aussi mooy le ministre Dame Diop. ñëw na fi avec une forte délégation mais aussi gis neen euh, euh, le président Modiane Fada amna ay émissaires yum fi yum fi yoni euh, mais aussi le ministre Alioune Sall mom aussi jot daje ngeen kaw la amna lu mu jotat waxtaan ak yow tout récemment gis le DG de l'AEMA Saya Diop moom aussi ñëw na fi ba démb d'ailleurs def nga ben déclaration ba fas yéene nga ak ce mouvement anda ak

Mimi recevoir na la. recevoir na la euh, à Dakar. Mhm. Euh, jamono yi mu nekkee président du conseil économique social et environnemental. Mhm. yooyu un briefing la. Mhm. Euh, nga indi na si ay leral. donc Ibrahima Sall moom lay wax. jël na ma. daje naan ci benn mais mu jël ma inboxing comme ni ngeen koy waxee. man am yéene ñëw mais comme je voudrais dire tout de suite que man je n'attends personne en politique. parce que. man damaa xaw a tardé tuuti si en politique ndax lan di am lu may xool di am lu may moytu bugg mel na comme suñu wàjjur woon na meloon fii en politique ba lu bari di koy raw ndax lu dëkk mën a garaawut garaawut donc euh, dama doon topp garaawut garaaw ba finalement je sais ne boo toppee nit ñi nit ñi xamuñu kurus nit xamuñu euh, ku bëgg dara sa rus sa sa rus a xëccoo mhm. xam ni ñu leen xam mhm. kuy fëgg ci taagal du dóor raison boobu moo tax mhm. kilifa laa comme ñoom ay kilifa lan kilifa woné ma bëgg nga ñëw ma dem seet la ndax kilifa mhm. def kilif des ci bir mhm. kilifa bu ñëw sama kër mhm. ma recevoir la jour mais à tout le monde sans exception kuma bañ ak suis bëgg ak kuma fonk fonk wax ma bëgg nga ñëw sa kër ma bismillah ku bëgg mais nak dama camp ci ben position parce que je suis un homme de principe loola xewna sama digent ak maa kii mm-hmm. Ibrahima Sall Mimi Touré recevoir na ma en audience mm-hmm. wax nañ suñu waxi politique ak suñu waxi développement mm-hmm. xamal na ma bu amul lu ma gënal nga bok sama staff ne yalla dogalu tissé man duma top ci gënaaw kenn duma daw ci gënaaw kenn yow nag boo fonk sa kàddu am nga ma mhm. boo fonk sa kàddu mhm. ñàkk nga ma kon résumé na mhm. c'est valable pour tout monde parce que man li ma gëm rek moom mooy nit bu fàttee li muy wax ak man man fàttewuma la may wax ak moom c'est nit ñi léeg-léeg léegi dañuy dañuy wax di fàtte est-ce que jikko ji yor mën na politique waaw non moo tax je préfère finalement xam nga boo ngay gisee ma def fii un temps deux ans yoo xam ne dama toog na pour pourtant toog gi ma toog yëpp gis nga ne ñi ànd ak man ñi nga toog ne tekk mhm. amul nag leader bu demul si ñoom ah mhm. amul leader bu demul si ñoom pour jëm leen fa dox guddeeg mhm. du dox tàkkusaan ak timis rek pour jóge waaye lu fa waaye wax rek mu jotaat naa ci balaa maa tëdd man j'ai pas de militants encore une fois xam nga am une famille affective lu fi sama bàyyi bàyyi moom laa yor base bu base bu solide laa yore ñoo xam ne danoo am ngëm-ngëm xaalis yëkkut fëkku leen

xeebuma leen si jàpp naa ñu maa xeeb mhm. fonk naa leen sa jàpp naa war maa fonk mhm. ndax euh, jamono ji koo xeeb mu yab la koo tuutal mu tuutal la mhm. koo gëm mu gëm la koo yëkkati mu yëkkati la yëg rek moo fi am solo man je les respecte beaucoup gis nga en politique man dépassé naa di wax nit lu ñaaw dépassé naa di def defen bu ñaaw sama sama jëm mayuma ko

lu fu way am nak mm. day jeex. askan wi ñoo ma euh, di leen fàttali yene ngi ak euh, la télévision Barak TV sen 54e numéro sen émission noko dundé présenté par votre fidèle serviteur le professeur tay ñu ñew fi ci cœur El Hadji Ngom euh, fii quartier Medinatoul mu nekk président du mouvement Suuxat Njaareem waye yobanti askan wi il faut mo wax ko parce que internautes di suñu waré dalal nit dañuy laccé ay question ñu ne Sémou yow lan ngay wër parce que poste de responsabilité yi nga yor machallah allah bari na. Euh, kilifa nga si dëkk bi lan moo tax ngay topp si ginnaaw kii que ce soit parce que yow sa poids diis na euh, lan moo tax présenté woo à la maire de Diourbel wala conseil départemental lan ngay tontu askan wi jàkkaarloog ñoom nga wax ak ñoom. way xam nga chaque chose à son temps. Hmm. àdduna ndar xëyut sotti la chaque chose à son temps da ngeen may xaar xaar leen rek maa ngi ñëw léegi. c'est hmm. un frère. son choix c'est pourtant Miss Dame Diop hmm. Hmm. directeur j'ai parlé de deux à la fois. que nous sommes sont mes frères. li ñu yore ñoom moomuñu ko askan wi moo ko moom Miss Dame Diop li yore mhm. Mhm. moomu ko mhm. askan wi ko moom république bi moo ko moom d'ailleurs souhaité naa ko demee mu nekk leneen poste boobu da ko fay bàyyi de kenn na koy jël te ka koy jël mën naa ba jël Diourbel mën naa dëkk Ndar mën naa nekk feneen département rek il peut changer à tout moment ñaanu ma ko yàlla mu wàcc dama ko ñaan yàlla muy gën a kawe te loolu mos naa leen ko wax ñoom maire maire yi ci salle de délibération ne leen seen xëccoo seen xiroo jaru ko man damaa ñaan yàlla ki ko amee lii keneen am lee kee am lee kenn ku nekk am jurbel am yàlla nangu na sama ñaan ko mais malheureusement léeg-léeg da nga téye mbir doo ko xam tontu ko askan wi de dinaa leen tontu mhm. damay ñëw ci question yi ba pare mhm. Cheikh mhm. wax koo xam ne ki macha allah dafa dafa dafa dal euh, xam naa yéen journaliste da ngeen ñu sorox sorox waaye <laughs> ma sorox sorox euh, li jëm ci le choix sur euh, Saer mhm. Saer ñëw na fi ñëwaat fi mhm. woo ma këram ma wuyu ko mhm. mu woo ma ay téléphone bu dul benn yoon du ñaar du ñett du ñeent dafa mel daa gën a soxla waa dafa mel daa gën a soxla dafa mel daa gën a soxla Saer du ma ko du ma ko SMS du tontuwuma Saer du ko woo sa wuyuwuma bu ma wuyuwut balaa moo teg cinq minutes mu woo sa préoccupation boo mën a am ak boo mën a am man bo ma rek ma décliné. waaw mm-hmm. ah, c'est pas un problème d'argent. Mm-hmm. maa ngi sant yàlla. Mm-hmm. wax naa ko ay kilifa fii. daw ma daayu ma. xiifu ma maru ma raflewu ma. te kenn teewul samay tànk. et je suis libre à moi-même. dama né askan wi nan xamné je suis président d'un mouvement soukhat njaareem. c'est aussi bir euh, non non non c'est amu fii. damay jàppale mon frère Sayer. -hmm. mu yéeg c'est c'est le plus jeune leader C'est le plus jeune des leaders de Durban. ce on a bon espoir à lui parce que Yalla mayna comme ko am ñangam Yalla mayna ko am métier am xam li gëna bon di politique sans métier c'est ce que j'ai mes enfants là il ne faut jamais faire de la politique tant que ne leen du ngeen mon ba paré mom dafa am métier dafa am métier tey ji bu ko Macky Sall ko jaam ak jaam jaam ak jaam mhm. mu konné di liggéey askan wi ba mhm. paré nek ci entreprise ce que disait Maître Jacques Bonnet à mhm. l'époque maa ngi koy ñaanal yalla fu mu tëdd mu sedd guy ba régime ba jeexaa qu'est-ce qu'il a dit damay solaat sama robe ndax man amna ah. métier di dimbali askan wi au passage maa ngi nuyu wa parti socialiste yëpp di lañu sargal bu baax di lañu ñaanal jàmm ñoom it di wax rek ne en tout cas c'est mon c'est votre c'est mon mon, c'est un mon de, de tous les C'est mon est là pour tout le monde, sans exception. Semou amul xaar ma yàlla ci ku mën a doon. sa collaboration ak avec, euh, ak Sayer euh, président euh, lan la le ban pacte ngeen signé. pacte que ngay ànd ak moom rek nii comme ça. après moom mu jël maire bi nga yo loo yow non man xam nga. Mhm. da nga maa posé question le tax man. Mhm.

en la personne de Sayer. Mhm. bu ñu ko les maire. Mhm. Macky Sall dégg baax li ñuy wax. Mhm. suivre baax li ma wax. suivre discours. parce que c'est pas un discours bon ma ni, c'est des réalités. beaucoup ko fuyatee gis ko. man du ma tout pour lu neex kenn. waaw lu neex Sayer. sa discours bi jaaxal nañu bari ah. non dafa am. en 2014 c'est ça qui s'est passé. man personnellement damaa dem ba gis nga sama bopp. lan moo tax nga oose wax ko. te nit ñi xam nañ xam nga xam nga nit ñi. Mhm. xam nga nit ñi. Mhm. boo demee ba am ko la moom mhm. dootoo ma wax. man man mouvement la yore. man je ne suis pas je ne suis pas un militant de kenn ku militant wu mouvement Soxna Ndiarème. benn parti moomu ma nag. mais sañ naa nag en tant que mouvement. ma xool ni kii kat la. ma ne na leen ko jàppale. C'est parti de. mon mhm. parti ma. Mhm. ñu de euh, mon sa déclaration bi nga xamné def nga ko euh, def devant euh, Aziz Aydara, Modjob, Grand Dame j'ai, ak Mbaye Wilane ñi nga xamné déclaration bi lan motax nga déclaration de presse defoo point de presse conférence de presse lan waral lolu xam nga <laughs> xam nga. xam nga man dina la jël xam naa ne bu na TV na bëgg décliné ça fait plus de plus de plus de six mois huit mois sax huit mois mhm. ngeen may topp may mhm. décliné mhm. c'est comme sites, il y a des leaders yu may topp boobaak léegi may décliné tey accepté naa leen Ahmed Dongo. journal évidence évidence sànq dans mon bureau lu mu poser poser nako répondre na lepp mhm. répondre naa répondre. je suis là ouvert mhm. ku ma woow ci plateau. Mhm. ma djel ma. ma tontu la. moi je ne fuis pas les débats. je suis je suis un homme averti. averti. gis nga soxluma big ak feuy li fi xewoon démb mi ngi fi. li fi xew barki démb mi ngi fi. li fi xew tey mi ngi fi ba nga ma ton tey wax na la démb barki démb li moo xewoon ah. Hmm. nan dem léegi ci tey. Euh, xam naa tu es un agent municipal. Euh, xam nañ ne euh, aussi am nga ay poste de te maire yi tey soo ñuy jox bilan wu maire Malick Fall xëy na tu averti mais am na ñu bëri ne Malick Fall defut bilan yow la nga lan ngay wax si loolu. xam nga Malick Fall. Hmm. pour dire vrai. Hmm. juste honnête.

assainissement là, mhm. électrification mhm. Mais bon, boo me def assainissement mhm. def électrification Matanga, def bilan def bilan mais Mary, marie mi Idée fi UCG kan État là. état la Oui. état état la électrification yi fi am. Hmm. kan la état la. ok question ah, question. ah non parce que ah, man ah, man. moi j'ai pas peur de quoi. de rien. ce que Fara disait à l'époque ben que poser question ko ndax Abdoulaye Wade de ragal Sénégal c'était en 1983. mu ne farañ mu ne fa Abdoulaye Wade dafa ragal la ñëw Sénégal yéen vous n'avez rien compris Abdoulaye bu waxtu jotam dina ñëw dina ñëw. si dara mënu koo téer ban wàcc fii c'est moom kala bis bu wax jotee dara mënu maa téye bañ wax. est que jàpp nga sa collaboration ak France ak euh, le DG de l'AMS Saër Diop collaboration bu France la. ndax politique moom dafa dafa doy waar. Ah, li ma jàpp. Mhm. li ma jàpp. Mhm. xam ko ci moom. Mhm. jàpp naa du changé. man nag ak ma am fulla ak ma am fayda ak maa xam fi ma jëm sama bu ma ko ñàkkee sax ñi ma ànd ñoo am fulla ci boppam man ku ma ànd ak ba gëm ne yow mii ku jub nga ku baax nga ba ma porté ab choix ci yow waxal la li ma la waxal bis boo ko teggee ma ne moo wax nangam wala moo def nangam moo def nangam sa góomu ne moom dana def loolu gis naa ne collaborateur ga mais un collaborateur très important mais si vous avez DG de l'AME SAER gis nañ fa Aziz Aïdara vous nañ fa ñeneen ak ñeneen yow fan ngay fan nga fan <laughs> en tout cas hier. Mhm. il m'a envoyé un message. Mhm. de félicitations. Mhm. en tant que grand frère am. noonu la mon cher grand frère. donc euh, jox nous ma sa man cër rek laa bëgg doomu adama cër rek la am mm-hmm. yàlla sax moom boo ko sàggana mu sàggan la xamal ma tamit ne compagnon laa mm-hmm. kon li wax ji na mm-hmm. xamal ma tamit ne encadreur la kon wax ji na kon place la am compagnon la encadreur mu la Saer il est mi ngi ci biir terrain bi di jouer il porte le numéro 10 je suis coach yaa koy coaché maa lay wax loolu waaw loolu na mi ngi <laughs> dem ak euh, télévision Barrack TV seen émission noo ko dundee euh, tey ji mu nekkoon sunu numéro de ñëwoon c'est si kàcc Medinatoul dem dalal El euh, président du mouvement Suuxat Njaareem mais nekk aussi président AMSA nekk PCA ONG fédération du Bawol mais aussi nekk secrétaire exécutif

ba mu fa génnee yàlla jeexal fa mhm. wërsëgam saa wërsëg fa la jeexee mhm. maa ngi rendre un vibrant hommage mhm. te kay sant bu baax c'est ma mère sama bajjan la sama yaay la li may wax askan wi moom mooy dana am yeneen plateau yoo xam ne ni buñ génnee si élection locale yi ils verront mais nag balaa ñoo gis sama waa ji ko yóbbu mu ko yóbbu ba pare sa waay sa waay fa <laughs> yem. ah fa yem. ah nan dem ba ci kanam mais cacophonie bu nekk seen seen seen kii bi seen seen seen seen APR bi est-ce que gars yi dañ nangu Saer dem. non mais du question nangu fii kenn moo fi décidé muy Macky Sall. Mhm. <laughs> Macky Sall lu waay mën a yëngutu lu waay mën a wax lu waay mën a def. Mhm. bu Macky Sall waxee ne nangam la. Mhm. nangam googu la ñuy def. mais yow da gaaw porter sa candidature pour Saer Diop. waaw parce que xam nga fii njëkkalante day am. sa am na ñuy wax. sa mom ban bama ko fay fek dafa wax candidature candidat à la candidature. man d'accord ma candidat à la candidature. candidature la candidat la. il est candidat wa il est candidat. ba bay ma kessal mi décidé. décidé lum décidé a ca grand ñong lay gërem ñu bay la nga tagu ma ngi sant ñep di gërem ñep di gërem ma famille. Mhm. samay soxna samay dom mhm. samay ñoo bokk bay Jibril sangulé mhm. ak njabot gep bayuma kenn. dañ sant bu baax yéen waa Moubarak TV di sant également les auditeurs et les auditrices mm-hmm. di wax ne émission bi dafa gàtt trop mm-hmm. ndax man lu mu bëggoon wax lépp da ngeen tënk rek une heure nga am <laughs> tuuti nag ci man uh-huh. non damay bëgg wax après après de li dégg dana jox beneen dana ma joxaat beneen dana ma mm-hmm. accordé la beneen ndax am naa lu bëri loo xam ne bëgg nañu dugg ci te buñ ci duggee askan dina gën a xam jàppal ne man amaguma dara ci politique bi soxla guma dara ci politique bi ki ma soxla mu war a am moom mooy na Sayer ab ba pare Sayer nag amagul dara ah, am ay non amagul dara da am beneen vision si moom ko non non non day dafa dafay dem numéro 10 day dugal di dem c'est le Messi te yaa koy coaché man maa koy coaché grand ñoo lay jaajëfal mi ngi noonu yéen a ngi ànd euh, seen télévision Barak TV euh, ñu amoon mbégte bu yaatu dem leen présenté euh, seen émission noo ko dundee fii si quartier Médinatoul si kër El Hadji Sémou Ngom nekk doom si Djibril Sangola ngoom ñu am mbégte bu yaatu vraiment di gërëm bu baax a baax l'incontournable Gora Diallo di gërëm samay doom xaadim nekkoon si digital bi pap Pape euh, vraiment di gërëm soxna yi nekk si kër gi sama chéri aussi euh, Thieba Diop sama chéri Ndeye Pouy sama chéri Thiéna seen di gërëm sama doom yi nekk si kër gi yëpp comme ni ñu koy waxee rek ñoo yëg di wàcc lam di daj di xam ne xamale àdduna potundaa la ku naan jox sa morom ndax lu tëgg tas waaye su neexee des ci xol yi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ba beneen numéro incha allah.